et euh, euh, euh, doyen. man dama gëmul ministre de l'intérieur war organiser élection. élection Sénégal kenn mënu ko sàcc. gëmoo ni. ministre de l'intérieur war organiser élection. moo ko a organiser a organiser. yow da nga jàpp ne moo a mais pourquoi Sénégal dafa amul problème élection. ah mais. le Sénégal n'a pas de problème d'élection bi muy jël nguur gi bi muy jël nguur gi ministère de l'intérieur dañu wut entité indépendante. mais gis nga boobu. c'est vrai Macky Sall bi mu koy jël anti indépendant yow nga ñëw toog ni anti indépendant. mais mais dépassé nañ loolu. mais dépassé nañ loolu ñaari alternance gis nga les de 2000 les élections de 2012 gis nga les gens du pouvoir dañu mais li ñuy yaakaar sax moo amul gis nga opposition bi ni ñu occupé le terrain politique occupé que les centres de vote le parti au pouvoir occupé ko noonu sax. parce que ñoo defee woon c'était acquis. voilà gis nga ñun gis nga bi ñuy surveiller le processus électoral liberté bi ñu amoon ñun en tant que opposant di ko def les gens du pouvoir ne l'avaient mm-hmm. dafa am loo xam ne. Euh, waaw waaw waaw et pour. dafa am loo xam ne dafa am loo xam ne cela produit. non non cela euh, produit cela produit de dafa produit ordonnance. waaw nga gis nga pour c'est pour te montrer que l'administration elle est neutre au bi nga xamante ni daanaka ñu ngi jiite électoral sur le processus électoral mais sur le processus électoral mais mais mais fan nga mën a fóodee amul fenn. monsieur le maire je suis vraiment désolé mais suis pas d'accord du lépp la ñuy wax mais je suis pas d'accord administration élection yi am na yuy xew ci yenn gox yi fii ci biir réew mi boo ko yëgul man yëg naa ko te ñeneen am na ñeneen ko yëg xanaa xanaa opposition dafa amul représentant merci xanaa opposition dafa amul représentant mais c'est ça exactement ah d'accord kon l'opposition a tort l'opposition a amul représentant rek elle euh, eh, a tort. dafa am eh. représentant. non mais l'opposition si eh, boo fa nekkulee bu ñu jëlee cër bu bu bu bu gis nga mais mais je crois que si monsieur le maire. waaw xam nga le problème qu'on a c'est euh, il est récurrent. c'est que acteurs politiques yi amuñu confiance et une élection c'est une affaire de confiance. ça tu peux avoir euh, une administration. qui respecte tout le processus. Mhm. mais soo amul si l'opposition n'a pas confiance à l'organisateur tu as la suspicion. deuxième euh, affaire qui est, me le plus important c'est que processus bi amul transparence amul transparence c'est-à-dire par exemple tu participes à une élection présidentielle tu n'as pas le fichier électoral alors que celui qui est au pouvoir il a accès au fichier électoral ça c'est un problème de transparence c'est-à-dire que am culture démocratique. mais le si mais ils ont le fichier électoral. non non ils n'ont pas vraiment le. fichier c'est dans le net le fichier électoral non non ils ont le tout le temps la même chose Et toi le PDS euh, c'est battu pour avoir les urnes. Ouais. Et pourtant c'est la même administration. non non non non non. ah les représentants des partis dans les bureaux de vote ils ont le fichier. oui oui non non je suis d'accord avec toi que l'administration elle est expérimentée ah, elle sait organiser les élections mais le ministre de l'Intérieur qui appartient à un parti mhm. qui a son candidat mais il ne peut pas être, ne pas être suspecté c'est, malgré sa volonté malgré sa mhm. sincérité il est suspect et ça c'est trop sénégalais d'ailleurs Mm-hmm. et je pense que il faut aller vers euh, le, la confiance c'est-à-dire que euh, vraiment soo amee une structure autonome et un indépendant tout le monde a confiance mais pourquoi pas si ça <laughs> peut rassurer tout le monde non parfois l'opposition le dit c'est pour préparer sa défaite beneen bi c'est pour faire consommer à l'opinion publique que ñii ay sàcc lañu lu ñuy def lañuy sàcc il faut ngeen taxaw c'est pour les mobiliser parfois aussi parfois aussi les gens le, les gens le font pour avoir nous de 74 à 2000 doyen Albert yoo xam naa ne peut-être fekk nga loolu après les élections Wade a dit toujours que ne moom moo gañ Abdou Diouf dégg nga xool dégloo ko mais c'était pour mobiliser ses troupes pour les prochaines élections mais Wade n'a jamais gagné d'élection ça je le dis avant 2000 non non non à jamais en 2000 et 2000 même l'a prouvé. 93 gañewul woon gañewul dara. ak bi ko jiitu. bu xum bu metti ba bu metti ba non non non météo na Dakar. Wade n'a jamais gagné d'élection non Wade a fait des percées dans la capitale. mais Wade n'a jamais non non musul gagné élection. non nag libéral bi nag. oui non tey nag libéral bi. joxe na joxe mais je mais je suis un acteur. maa ngi suivre processus électoral bokk na Wade mu gagné élection et je te dis pourquoi yàlla dinaa la prouver la moo dinaa la prouver léegi en 2000 les élections étaient mieux organisées qu'en 93 d'accord d'accord nañ ci. Mm-hmm. est ce nga ci loolu. sure ah, nga ci. en 2000 bi résultat yi génne wala ñaata la am. premier tour parce que deuxième tour la. premier tour je dis ñaata la am. non non est ce que dama ko laaj. vingt et. ah vingt six ah mais du loolu la ma ki am. non je mooy moo leen wan donc Wade. apparemment ma kii ma kii premier tour. loolu la am ah. mais mais moo leen moom moom moom vingt six pour cent. <laughs> te tey dafa am ñu mu àndaloon. waaw merci beaucoup. te bu njëkk te bu njëkk bopp sa bopp la woon. voilà voilà merci beaucoup 2000 la coalition yi commencé formé wu. non 2000 ànd naa ak ñoom agent Ablaye Bathily ñoom ñoom ànd ak ñoom ñëpp. dans ko et cetera ñes bañ ko jëli jee. ah mhm. non boobu avant ñes au deuxième tour. au premier tour je dis au premier tour Wade a eu 26 pour cent. avec <coughs> Dansokho avec euh, voilà euh, donc Savané avec euh, LD. voilà mu donc moo lay wan nekk Wade musul gagné élection ñun de ñun nag dañu xëy naan Wade ñun ñoo gagné ñoo gagné ñoo gagné. c'est une façon de mobiliser. c'était une manière de mobiliser. ku fi politique rek yéen ko jàngal opposition yéen ñi. <laughs>